salaamaaleykum lañ def tansim ak comité organisation daayira Moukhaddamatoul Khidma ni ma ko baaxoo defee ci màggal gune ne ren yi itam noonu ko defaat ñu tàmbali ko tey jii di ñaan yàlla suñu borom ñu mottali ko ci jàmm niñ ko tàmbalee nag mooy ànd ko ak mbooleem daayira électricien bi nga xam ne ñoo ne fii ci Touba ñu ñëw gunge ci liggéey bi ci lépp loo xam ni day laaj ay réparation ay dépannage ndax mu xam ne boo ko defee rek mooy su màggal gi ñëwee dana changé lépp loo xam ni pile la ventilateur waaye itam seetal jumaa ji biir ak bitti ak mboom li ko wër lépp rek lépp nag loo xam ne dafa ajju mbirum courant moo tax ñu ànd ak daayira électricien yi nii su ko defee kon liggéey bi tàmbale ko tey ji incha allah rabbi dañ ko wéyal itam ba keroog mi mat rek mu bokk ci benn ci pàcc yi nga xam ne comité organisation bu ma xam ne ma dana ko taxawale dana ko taxawale ci ci liggéey bi bu ko defee yaakaar naa giseen ko ni tey ji àll ba di ñaari fan ci weeru safar mboolo mi xëy nañ ci mbooloo mu takku fas yéene lépp loo xam ni dana jur loraange te na ci barab bi danañ ko àndale xam ngeen te jumaa itam mi ngi ci sànci maam Cheikh Mouhamed Mountakha moo ko liggéey ñu ngi ñaan borom dolli ko ak wér ngeen ko fa yàggal li mu yéen tam ci jumaa itam su ma defal ko ko ci liggéey bi bu ko defee itam sànci boobu day tax ay xeer sosewaan di faradaab yooyu yëpp tam dañ ko nettoyé ba mu set ba incha allah benn garawaay wala leen lu fi des loo xam ne daan lool nit ba nit ñi mën a ñëw jumaa ji ci jàmm te daa du leen fakkasal daa du leen gaañ incha allah ma xam ne dana ko taxawee incha allah